foofa ca euh, Grand Théâtre mbokk yi tey sunu émission nag dañ koy ubbee ak orchestre boo xam ne ñoom itam ay ndaw lañu di def lu am solo di bay seen waar ci wàllu musique afro orientale nekk fële ca Géejawaay ñu leen di wax waa yaakaari ëllëg dañuy ànd ak ak euh, soxna euh, Jeyna ci way bi nga xam ne tabaarakallahu Euh, mooy innal muraada ñu way ko yonent bi sallallahu waaye tam mu indee ko ci anam bu am solo ànd cek waa yaakaari ëllëg mbokk yi moom la ñuy ibbee tey sunu émission xaar leen nag ci serveur bi 88 la 628 66 92 ngeen mën a dugg bégal seeni xarit seen i soppe ak seen i am di jàmm ci lu am solo li nga xam ne mi ngi fiy jaar di liggéey bu rafet bi nga xam ne ñi yëngu ci wàllu musique afro orientale ñi ngi koy amal ci biir réew mi ak ci biti réew kon mbokk ñu ànd dem xool ci plateau bi وخير من تغله الغبراء أكرم من تذله الخضراء وخير من تغله الغبراء baax waa yaakaar yi ëllëg soxna Dieyna macha allah ci euh, way wu am solo boobu tabaarakallahu lépp nag dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yal na yàlla ñun itam def ñu dëgg dëggiñ euh, njabooti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit boole ñu ci euh, xeetam ñi ngi jaajëfal waa yaakaar yi ëllëg. ñoom it ñuy ay ndaw di lu ay événement yu am solo incha allah ci décembre bi ñu ngi leen di ñaanal ñu agsi ci ak jàmm ñoom itam xam naa ci émission yi di ñëw danañ ci euh, gën a yaatal euh, ak ñi nga xam ne ñooy waa yaakaari ëllëg mbokk yi gannaaw buñ jógee ci waa yaakaari ëllëg nag niñ leen ko waxee tey ñi ngi euh, diffuser ci YouTube bi kon képp koo xam ne rek bëgg nga seetaan sa émission Euh, sonorité sacrée ci Mourchid TV moo xam daf la fekk ci yoon moo xam daf la fekk nga nekk ci tënku ba munoo jàkkaarlook sa chaîne de télé euh, sa poste télévision donc mën nga ñu topp ci euh, Mourchid TV l'officiel ci YouTube bi ci suñu plateforme digitale ci noonu la ñuy jaaree jaajëfal baax baax suñu infographe maison di Ngagne Diop waaye tamit noonu la ñuy nuyoo. ki nga xam ne mooy Njaay Toora moom itam ci liggéey bu rafet bi nga xam ne mu ngi koy def niki noonu waa digital ñoom itam ñi ngi leen nuyu bu baax a baax liggéey bu am solo bi nga xam ne ñi ngi koy def euh, ci Mourchid TV waaye rawatina nag ci émission bi nga xam ne mooy euh, sonorité sacré mbokk yi ni ñu leen ko waxee ñi ngi ànd ak sunu sponsor officiel muy kenn bëggul bu Serigne Safa si numéro yaa ngi noonu affiché au bas de l'écran képp koo xam ne rek am nga lu la yitteel moo xam tawat la wàllu yaram moo xam sa yëngu-yëngu àdduna la moo xam li aju ci wàllu listixaar ak yu ni mel yooyu yëpp rek mën ngaa woote ci numéro yi di nga jot ndaw ñi nga xam ne ñooy taxawu kenn bëggul bu Serigne Moustapha Sy ci appel téléphonique yi ñu mën leen a gindi waaye tamit wax leen ban yoon ngeen di jaar ba giseek doomu borom bàmmeel bi mbokk yi numéro yaa ngi noonu nag affiché euh, mën ngeen ko jël ngeen woote ci 77 la 502 15 63 euh, 77 502 15 63 wala ngeen woote ci 76 378 17 76 378 17 bu dee nag ñi nga xam dañu am ay cas urgent muy lu mënta xaar te ñu bëgg gisante kenn bëggul bu Serigne safaa si mën nañu woote ci numéro d'urgence bi muy 77 030 48 40 77 030 48 40 mbokk yi kenn bëggul bu Serigne Moustapha Sy ma nga nekkee ca euh, tableau Tivaouane nekk foofa ca wetu postu caaro yi euh, fépp foofa taxaw rek boo laajtee danañ la wan résidence bi nga xam ne nii fa lay euh, dalal nit ñi waaye itam fa lay recevoir mboolem ñi nga xam ne nii am nañu yitte ba jëm ci moom rawatina muy soxla wala muy aajo su ko defee rek bés yi muy recevoir nag mardi la mercredi jeudi samedi ak dimanche bi nga xam ne nii dana ci faral di recevoir bu dee diggante nag 9h euh, ba jàpp midi midi 30 ba léeg sax 13h ça dépend rek ci euh, li nga xam ne nii moom la bës boobu laaj bu dee nag ci nga xam ne dañ bëgg rendez-vous privé yi euh, lundi lay am ak mercredi diggante 15h euh, jàpp 17h kon lépp lu ngeen ci bëgg rek ci ay leeral yu gën a yaatu mën ngeen jël numéro yi ngeen woote ci di ngeen jot ndaw ñi nga xam ne ñoom dañ leen gën a mën a gindi gën leen a jox ay leeral mbokk yi ñu ngi leen xaar ci serveur bi 88 la 628 66 92 ngeen mën a dugg bégal seen i soppe bégal seen i xarit ak seen i am di jàmm waaye nag incha allah le 9 décembre bi ñu jëm ca Grand Théâtre émission bee di ñëw danañu dalal ndaanaan Mouhamed sekk Melo dana ñu tamit maye ay ticket ci émission bi waaye ci kaw nag ngeen tontu laaj yi nga xam ne danañu ko laaj ci émission boobu te laaj yi nag weesu lu dul yëngu-yëngu Mouhamed Seck Melo waaye rawatina édition GNV yi nga xam ne organisé na ko ngeen gëstu date yi gëstu lieu yi nga xam ne ca la ko defee woon ak lenn lu ci nekk leen mooy fait marquant yi nga xam ne amoon na ci édition boobu su ko defee question yi ci loolu rek euh, lay tourner bu soobee yàlla kon loolu samedi bii di ñëw lay doon incha allah mbokk yi dañuy ànd dem xool waa Shamsu Fanil Mursidin ak Mansour Diop Al Fanaan way na moo Mawlaay Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha si ñu dem déglu euh, lan la way lan la wax ci biir way wi dellusiwaat ci plateau bi euh, xaar leen ci serveur bi 88 la 628 66 92 Mansour Diop Alfanaan ñu xool ko dellusiwaat. المخملين المنير شيخ مصطفى أنا دمتي وأوديني سيميداو الإبو خمري يا سيدي يرنالو يرنو جيلو تلبسو خنا دلو نربي خرمان يكال بامودوي يرنالو يرنو جيلو تلبسو الخنا كريك روحي خمجة بنيتي دنيا مسبي يبي ساي ساي من فبي بكريك روحي خمجة بنيتي يخ مصطفى ام قدام كي واروديني سير داول جيكو خم يا سيدي سيدي يا سيدي يا سيدي law ci ku xam-xam yi mag muy Cheikh Moustapha am nga ndam ci wàllu diine say may lawul ci ku xam ya sayidi Cheikh Moustapha Sy yar nga ndaw ñi gindi mag ñi gindi réew xal fi jotal nga jotal nga sagal nga ñënu diine yërëm nga si yar nga jotal nga kenu diine si muñ nga si dal nga tee nga noo diine ñu roy ko te ngoy ko ndax moo di sagu diine Cheikh may daawul ci pour xam ne yaa seydi 8 628 66 92 ñu jël mbokk boobu nekk ci bi allo. 92 ñu jël mbokk boobu nekk ci bi allo. allo sëñ bi maaleykum salaam. sama soppe maa ngi ziar. ñi ngi ziar kooku Chérif Chérif baal ñu nga déglu ci téléphone bi. waaw. waaw waaw maa ngi déglu ci téléphone bi. waaw kay mi ngi noonu ñu ngi lay dégg bu baax naka waa soppe Sonité Sacré yëpp. ah waa soo visiteur Sacré-Cœur ñu ngi fi di la bu baax a baax. waaw ñu ngi si jàmm maa ngi lay jox nuyoo bi nga tegal ma ko ci loxo kenn ku ci nekk. incha allah gars yëpp dinañ si jot. ñu ngi kontaan ci yéen bu baax waay. wallaay ñoo gën a kontaan bu baax a baax. baa lépp jàmm rek. waaw waa ñu ngi sant di kontaan rek ci émission bi comme ñu koy defee saa su ne. ñoo gën a bég ñan nga bëggoon a bégal. waaw hmm. ah, tey moom dama am sama benn jarwaat bi anniversaire. ah. waaw Serigne Moustapha Guèye turandoo Serigne Moustapha. ah kooku nag dañ ko wax joyeux anniversaire kon. waaw kooku moom daal tey loo fi teg rek mayal ma ko bu baax a baax. incha allah bu soobee yàlla. li ci des moom dama la koy delloowaat rek ko jox rek mu am. mi ngi noonu kon mat na. waaw kay ñu ngi si kontaan bu baax a baax dina ñaanal bu baax a baax itam. merci beaucoup Chérif. yàlla yàlla yokk émission bi bu baax a baax a baax. a ñu bokk ñu ñëpp incha allah. waaw ah, kontaan nañu bu baax a baax. Euh, ay dara di euh, ki nga xam ne macha allah moom itam soppeele ci ñun. waaye tam ñu taxawal euh, kuréel googu nga xam ne mooy soppey Sonatel Sacré di groupe whatsapp. di ay mbokk yu am solo ñu ngi koy jox nuyoo bi mu joxal ñu ko mbokk yi nekk ci groupe bi yëpp. kon mbokk yi dañuy woy ba tey ànd ak waa Chamsu Fanil Mourchidine ngeen mën a bokk nag ci émission bi jaaree ko serveur bi 88 628 66 92 ñu ànd ak waa Chamsu Fanil Mourchidine matal nga jotal nga sagal nga ñañu diine yërëm nga si yar nga jotal nga kenu diine si muñ nga si dal nga tee nga noo diine ñu roy ko te ngoy ko ndax moo di sagu diine 628 66 sang bi waa ñu ngi lay ziar bu baax kooku Seydina Omar naka waa Malika. waaw Malika ngi mbaa ñëpp a ngi si jàmm alhamdulilah ñu ngi sant bu baax. mbaa lépp jàmm naka soxna yi mbaa ñëpp a ngi ci jàmm. naka njaboot gi yëpp. maa ngi lay seen ci programme Pape Alioune Ndoye ma ne ah, xam naa ne da nga yóbbaale teewal ñu. <laughs> waaw loolu la de. ndax dañu waroon a teel xëy lool wax dëgg yàlla moo tax mënuñu woon. teewaale allah kontaan nañ bu baax a baax. aha ñan nga bëggoon a bégal. waaw ah ñoo ngi bëgg nag. ñëpp nag fa tabaarakallah. jagleel ko kër ak maire. Mhm. ah di ñaan rek suñu góor gi. incha allah ñu jëlee ko père ak mère yëpp nag. incha allah bu soobee yàlla incha allah ak mbokk yi naka wàccaay yi ah, foofa ca Malika rawatina ah, soirée bi nga xam ne Mouhamed Seck Melo mi ngi koy waajal incha allah. waaw ñoo ngi waajal a ndax xam nañ sa digganteeg moom ak sa kóllëre moom. waaw moom de ñoo ngi préparé bu baax a baax tabaarakallah yal na yàlla mottali ko. amiin allah kooku moom suñu doomi bopp la joo xam ni moom. Mm-hmm. dañ loolu feeñ na am na luñ ci xam ñu préparé ñëpp kon nag yal nañ ci yàlla yóbbu jàmm yal waaye amiin yaa rabbal ñu ngi siyaare ñëpp. ñu ngi lay ziar baax Seydina Omar. di kontaan ci yow jërëjëf Seydina Omar Sall doon woote ba Malika ñu ngi nuyu waa Malika yëpp waa Yëmbal waa Caaroy waaye ni noonu nag la ñuy euh, nuyoo nag waa Parcelles Assainies rawatina nag ki nga xam ne mooy Baye Habib Gaye ñu ngi koy nuyu bu baax di sunu soppee di sunu wëllëre di sunu wayjur di kontaan ci moom bu baax a baax ci bàyyi bi mu bàyyi xel di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal taxawaayam te yàlla wéeral cër yi bu baax a baax incha allah waaye noonu la ñuy nuyoo tamit imaam Ahmed Niang nekk foofa ca Thiès moom it di sunu wëllëre mbokk yi kon gannaaw bi ñu jógee ci waa Chamsu Fanil Mourchidine ci woy wu am solo woowu nga xam ni way nañ ko suñu kilifa Mawlaa Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha si mbégal ci bu baax na Omar sàll waaye niki noonu ay dara waaye tamit may ko suñu waajur bi Baye Habib Gaye moom it ñu ngi koy nuyu baax ak imam Ahmed Niang moom itam di ko ci euh, bégal bu baax euh, jaare ko ci way wow mbokk yi nag euh, kerew dañoo sob ànd ak sunu cadreur ñu doon doxantu rek ba far dugg yëmbal dégg Mouhamed Seck Melo muy répété ak orchestre bi ñu ne nañ fa jaar jéem a lëñ bëtu xool lan la ñuy waaj ak naka la ñuy préparer le vingt le 9 décembre fële ca Grand Théâtre mbokk yi élément boobu lañ leen di dëgtal avec la complicité de la régie ñu xool euh, liñ fa jëlee ak Mouhamed Seck Melo euh, naka la ñuy waajee waaye tamit naka lañ nekkee seen séance de répétition ñu xool lool mbokk yi dellusiwaat ci plateau bi. voilà mbokki euh, téléspectateur Mourchid TV niñ leen ko diggee woon tey nag ñëw nañu fi nga xam ne moom mooy yëmbal. Euh, fekk fi ndaanaan fekk fi artiste bu mag boo xam ne macha allah ñi ngi waaj euh, spectacle bu mag boo xam ne ñu ngi ko fasee defee euh, fële ca Grand Théâtre incha allah le 9 décembre lay doon ak kan ak Mouhamed Seck Melo le géant du live mbokk yi moo tax tey ñu doxantu ba fi nga xam ne moom mooy yëmbal ñëw rek bett si ko ak orchestre bi ñu xool naka la ñuy waajee waaye tamit naka la ñu taxawee incha allah fas yéene ko bégalee ñi nga xam ne ñooy soppe yi ak mbokk yi ak xarit yi am di jàmb yi ñu fekkoon ko nag euh, en séance de répétition bett ko moom Mouhamed sekk Melo euh, xool naka la waajee waaye euh, mi ngi waajal nag lu diis lu am solo macha allah loo xam ne nii li gars yi naan du lourd mooy xeeñ incha allah le 9 décembre fële ca Grand Théâtre ak le Géant du Live muy Mouhamed Seck Melo. kon ñëpp euh, ñu waaj ko ñi ngi nuyu nag bu baax a baax ñi nga xam ne ñi ngi ñuy bàyyi xel suñu plateforme digitale rawatina ci YouTube bi nga xam ne euh, seen émission sonte Sacré yéen a ngi seetaan en direct ñi ngi nuyu nag bokk yëpp di ñu seetaan ci YouTube bi ku lim rek dese waaye gis nañ encouragement yi félicitation yi ndokkeel yi waaye lépp yéen lañ koy delluwaat ndax yéene suñuy doole ndax kuy feeñ bëgg na ku koy xool kon yéen ñi ñuy seetaan macha allah yéene suñu doole kon ñi ngi leen di ndokkeel di leen jaajëfal di leen wax ni lu fi jaar rek may nañ leen ko yéen a ko moom kon woy leen di partager euh, video yi waaye tamit di ko emee euh, di commenter aussi waaye tamit euh, lépp lu leen raw rek mën ngeen demaat ci replay yi ngeen mën ko seetaanaat Euh, ci seen plateforme digitale Mourchid TV euh, l'officiel muy euh, YouTube di Facebook bu mu ci mënti doon rek mën ngeen demaat ngeen xool replay yi mbokk yi niñ leen ko wanee léegi rek danañ jël soit ak Mouhamed Seck Bello ndax jot nañu waxtaan ak moom ci wàllu préparation yi jëm le 9 décembre ca Grand Théâtre ñu ngi woy nag di ànd ak sunu sponsor officiel muy kenn buggul bu Serigne Safassi numéro yaa ngi noonu affiché au bas de l'écran mën ngeen ko jël ngeen woote ci lépp loo xam ne rek yitteel na leen wala mu jaaxal leen euh, wala rek ngeen euh, yittewoo ko te bëgg ci ay leeral bëgg ci gindiku moo xam mu doon tawat moo xam mu doon mbirum àdduna moo xam mu doon listixaar ak lu mu mën mënti doon rek woote leen ci numéro yi di ngeen jot ndaw ñi nga xam ne ñoo koy taxaw ci appel téléphonique yi ñu mën leen a gën a gindi waaye tamit euh, mën a xam seen aajo lan la ñu mën leen ci jox ay firnde jox leen ci ay leeral Euh, jox wan leen ci ban yoon ngeen di jaar ngir mën a jàkkaarloo ki nga xam ne mooy euh, doomu borom bàmmeel bi di kenn bugul euh, bu Serigne Safaasi moom itam ñu ngi koy jaajëfal baax a baax ak équipe bi nga xam ne yëpp ñi ngi ànd ak moom di ko jàppale ci liggéey bi ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal ci seen taxawaay ak i tamit ñi nga xam ne ñi ngi koy taxawoo aajowu askan wi di ci def liggéey bu am am solo kon gàcce ngalaama yéen numéro yaa ngi noonu nag affiché au bas de l'écran Euh, fi mu ne nii moom jaratu sax ma di ko éppale ndax émission bu ngeen jël wala vidéo bu ngeen jël ci Mourchid TV rek euh, li ci ëpp di ngeen ci fekk ceer euh, bi nga xam ne ñi ngi ko teg ci suuf waaye tamit di ngi nañu émission Sonorité Sacrée bu ngeen jël éppale naa ci numéro yi nga xam ne nii mooy ngeen yi mën a jotee sunu sponsor officiel muy kenn buggul bu Serigne Safa kon nag numéro yaa ngi noonu 77 la 502 15 63 77

Euh, kenn bëggul bu Serigne Moustapha bu ñu jóg rek dem ca këram noonu nañu woote ci numéro d'urgence ba pare ba jot ndaw ñi nga xam ne ñoo koy taxaw ci loolu ñu mën a xam mbir mi nu mu tëddee euh, bu laajee rek euh, lu mu laaj ñoom danañ ko def incha allah numéro bi nag mooy 77 3 030 48 40 77 030 48 40 boobu mooy numéro d'urgence bi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon bés yi nga xam ne ci lay recevoir mardi la mercredi Euh, jeudi euh, samedi ak dimanche bi nga xam ne mooy bésu euh, sàkk pexe diggante 9h jàpp midi jëm midi 30 ba léeg-léeg 13h bu dee ñi nga xam nag dañ bëgg ay rendez-vous yoo xam ne rendez-vous privé la mi ngi koy amal lundi ak mercredi diggante 15h jàpp 17h kon defe naa loolu leer na. su ko defee mbokk yi bu ñu jógee ci lool nag dañuy ànd ak koo xam ne moom itam ndaw la waaye mi ngi def lu am solo ci wàllu musique afro oriental moom it di euh, yëngu ci loo xam ne nii mi ngi wër partout euh, au Sénégal di def ay concert waaye itam di jigéen di ndaw kooku nag mooy soxna Zeynab Thiam euh, moom la ñuy seeti ci firqa bi nga xam ne mooy jantu njolloor muy def lu am solo ñu xool woy wi nga xam ne nii mooy woy wi nga xam ne ci lañ ko njëkk a découvrir ci li ma mën a wax bokk mu def ko clip muy yaa Ahmad muy way woo xam ne macha allah euh, tegu na ca teguwaay kon ñu ànd ak Zeynabu Thiam bégal ci mboolem soppe yi bégal ci mbooleem soppe Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, dellusiwaat ci plateau bi xaarle leen nag ci serveur bi 88 628 66 92 ñu dem dellusiwaat. 88 628 66 92 allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam kilifa gi tur ak fan nga ñuy woowee. Abdou yàlla nangu ziar fii la ëppee. waaw di yàlla yàggal ko fi te ko. amiin incha allah ko wax loolu. ci benn ndongo la fekk baax Noane Diop. Ah. Ibrahima Thiam ñu ngi nuyu waa Fass yëpp waaye. waaw di ko di ñaan soxna Sayda ba Sayba Diatta. soxna Sayba Diatta aha di ko may soxna yeeg képp koo xam ne bokk nga ci njaboot gi rek. aha di may waa Daya Ndiob. Mhm. waa Méouane. waaw. sama xaritu bopp nag. xam naa di rek Ibrahima Cissé. Ibrahima Cissé. moom ñi ngi ko doon sargal samedi passé fële ca N2S muy concert mag boobu Pape Aliou Ndoye. Euh, organisé woon foofu ni boobu laa lay ah, d' accord. waaw foofu laa lay foofu laa lay laa lay wooyee macha allah ñi ngi kontaan lool ci yow waaye. waaye waaye di bu baax a baax a kontaan bu baax macha allah kontaan nañ. waaw ñu beaucoup sang bi. jërëjëf na yàlla fa yow incha allah ñu ngi koy jaajëfal def leen ni moom 88 la 628 66 92 ñu ànd ak Zeynabou Thiam ba tey ci yaa ah, Ahmed. bu caam lañ nekkaloon uh, ci woy wu am solo boobu nga xam ne mooy uh, Ahmad uh, moom itam muy ndaw waaye tamit di koo xam ne mu ngi def liggéey bu am solo ci wàllu musique afro oriental kon ñu ngi koy jaajëfal di ci bégal nag mboolem soppe ay dara moom itam xam naa ni sunu nempant boobu di anniversaire moom it ñu xamal ko rek ni lu fi jaar tey may nañ ko ko macha allah kon lu mu gis rek ñu may ko ko waaye noonu tamit la ñuy ndokkeele sunu Serigne Serigne Safa si moom itam doon anniversaire le 24 euh, moom itam ñu koy ndokkeel ah di leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla na yàlla dundal leen te màggal leen incha allah noonu la ñuy ndokkeelee itam sunu euh, wóllëre Mouhamed Dieye nekk fii ci Medina ak soxnaam soxna Fambaye Dieye waaye Serigne Babacar sunu séddooñ moom itam ñi ngi koy ndokkeel bu baax ak maam Alpha ñoom itam ñu ngi leen ndokkeel mbokk yi kon suñu jugee nag ci soxna Zeynab Thiam dañuy ànd ñun ñëpp rek demaat euh, seeti. Euh, ñoo xam ne ñi ñoom itam ñu ngi def liggéey bu am solo ci wàllu musique afro oriental waaye nag ñu gëj leen a gis gëj leen a dégg di leen wax ni nag gëj nañu leen a gis ñu yëngu te fii lañ leen koy waxee ndax fii lañ leen ko war a waxee ñooñ ñooy waa sabilu salaam ba du ngalaan xaw ma ci lu ngeen nekk nag waaye bëgg nañ tamit ruq boobu di géejawaay ngeen yëngalaat ko ba ñu yëg ni yéen a nga fa di def liggéey bu am solo waaye itam yéen nga fa taxaw seen taxawaay bañ leen xamee ci at yi nga xam ne ñoom la ñu weesu kon dañuy ànd ak waa sabilu salaam ci soxna euh, Ndeye Astou euh, ci woy wi nga xam ne mooy Cheikh Moustapha muy woy wu am solo macha allah ñu bégalee ko nag mbooleem soppe yi euh, bégalee ko xarit yeeg ñëpp ñi nga xam ne rek ñi ngi ñuy bàyyi xel jamono ji ci YouTube bi waaye tamit di ñu seetaan en direct ci Mourchid TV jàkkaarloo seen télévision ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di ndokkeel bu baax waaye bégal ci nag bu baax a baax euh, ñi nga xam ne nii ñoom itam ñooy waa section euh, Kër Mbay Fall ñiy wàcc conférence bu am solo le 10 décembre foofa ca Kër Mbay Fall ñoom it ñu ngi leen ciy bégal bu baax ak waa localité Mbaaw yëpp rawatina nag waa axe ex axe Rufisque Mbour ñoom it ñëpp ñu ngi leen di euh, bégal mbokk yi ñu ànd ak waa Sabilu Salaam ci way wi nga xam ne mooy Cheikh Moustapha dellusiwaat ci plateau bi. مصطفى شيخ مصطفى شيخ مصطفى شيخ مصطفى شيخ مصطفى وبجماعة شيخ مصطفى شيخ مصطفى Cheikh Moustapha هنا إصلاح Cheikh Moustapha خليفة الولي Cheikh Moustapha شيخ التجاني صلاح Cheikh Moustapha الحاج مالك Cheikh Moustapha من أرواح Cheikh Moustapha من أرواح Cheikh Moustapha من أرواح Cheikh Moustapha من أرواح Cheikh Moustapha شاه مصطفى شاه مصطفى merci beaucoup euh, soxna Ndeye Assou ñu ngi koy euh, sant moom itam euh, ci woy wu am solo bi nga xam ne dootul fay ba mukk ni mu ko waxee rek Moustapha ñu doy Moustapha leen doy macha allah loolu am na kon ñu ngi leen di jaajëfal ñoom itam bu baax waa Sabilu Salaam di leen wax ni yéen itam yéen a ngi def liggéey bu am solo ci wàllu musique afro orientale kon woy di bay seen waar waaye itam woy leen di taxaw woy di. yëngu ci li nga xam ne nii euh, ñëpp xamee nañ leen ci kon Badou Ngalane defe naa message bi mi ngi noonu su ko defee mbokk yi kon ñu ngi woy ba tey di ànd ak yéen di leen bégal ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu yëngu ci wàllu musique afro oriental ñu ngi koy amal ngeen mën a dugg nag ci émission bi euh, mën a bégal seeni soppe ci 88 628 66 92 ñuy ànd ak sunu sponsor officiel. muy kenn buggul euh, bu Serigne Safa Sy ñi ngi nuyu nag bu baax ñi nga xam ne ñi ñi euh, topp jamono ji ci euh, suñu plateforme digitale rawatina ci YouTube bi ci Mourchid TV l'officiel kon woy leen di abonné waaye nag di aimer vidéo yi di commentaire di ko partager lépp lu leen raw rek mën ngeen demaat ci replay yi ngeen mën ko seetaanaat mbokk yi suñu jugee nag ci waa Sabilu Salaam dañuy demaat euh, fële ca yëmbal euh, wax nañ leen nii rek euh, war nañ leen sànq ni nga xame noonu la ñu bettee Mouhamed Seck Melo ci bés bu mag bi nga xam ne mi ngi koy waajal di wàllu teg jéego jëm nag ci li nga xam ne moo aju ci wàllu guddi gu mag gi nga xam ne incha allah GNV la muy la grande nuit des valeur le 9 décembre fële ca Grand Théâtre ñu war ci ànd ak moom waaye tamit war a dund spectacle ànd kook Mouhamed Seck Melo jot nañu nag waxtaan ak moom jot nañu xool fan la tollugum incha allah ci wàccaay yi ak ci préparatif yi mbokk yi ñu dem dëgtal leen élément boobu dellusiwaat euh, ci plateau bi. voilà mbokk yi euh, mi ngi noonu muy lennat loo xam ne rek euh, jot nañ ko fësal ci liggéey bi nga xam ne ni Mouhamed Seck Melo mi ngi koy waajal fas ne ci bégal soppe yi xarit yi am di jàmm yi le 9 décembre fële ca Grand Théâtre ndaanaan ñu ñëw rek fekk leen bett leen sax ngeen nekk ci wàccaay yi ah, nekk ci séance de répétition yi ah, bob ba léegi yéen a ngi ci tey nag ñu doxantu si fi xool naka ngeen toogee ah, ñu gis fi yu yu xaw a yéeme ñu bëggoon a xam rek wàccaay wi naka la tëddee actuellement ngir wàcc bës bu rëy guddi gu rëy gi nga xam ni ñu ngi koy amal ca Grand Théâtre le 9 décembre. barakala macha allah jërëjëf Abdelaziz ñu ngi lay jaar bu baax di la nuyu. di nuyu sama mbokk bopp Papa Alassane di nuyu téléspectateur Mourchid TV yëpp di jaar habibi wa saydi malaay Mouhamed Moustapha Sy hafizahullahu wa ayyadahu wa taala baqaahu góoru sama góor gi yal yàlla barkeel gis nga rek Abdou Aziz yaa ngi ñëw fekk ñu ah ñu nekk ci waajtaay yi nekk salle de répétition gis nga ni mu demee waaw on est très fatigué sax vraiment ndax euh, bés la moom si nii bés bu mag la grand théâtre ni mu toll rek la toll ni mu tudd la tudd aussi grand théâtre donc euh, ñu war fa dem le 9 décembre vendredi incha allah rabbi si barke suñu sang suñu kilifa sey Seydi Mawlaay wa Habibi Mouhamed Moustapha Sy ànd kook nag euh, tuddee ko suñu maam suñu maamu bopp Serigne Cheikh Ahmed Niass Al Maktoum à l'image du capitaine sama soppe suñu xarit suñu lépp macha allah ah di ci woo ñëpp nag rek gis nga ñu ngi ci rek bëgg fa yéene bégal bégal bégal mbokk yi rek. waaw li nga fekk nii yëpp fekk nga tuuti ñu nekk di arranger morceau yi di arranger ndànk-ndànk parce que am na morceau am dafa bees il ñu arranger ko atelier ko macha allah alhamdulilah ci nga fekk ñuy def nii lépp ngir bégal leen rek incha allah rabbi le jour J. Euh, te incha allah xam naa ni dinañu bég ndax maa ngi ñëw fekk ñu yemoon ci sagu jamono euh, nekkaat ci yëf yi di ko toppaat. mais aussi tamit euh, gis naa nga dugg ak ñun defe naa taaxat la ah taaxat bi nuuri jamaalikal ahlam bu suñu maam Serigne Ahmed Tidiane si almaktum euh, donc ñu mën a xaar leneen ak leneen ci guddi gi incha allah mais dafa am ñu ma daan gis nag ñu la daan dar muy sa lingeer yi mais dama ñëw euh, xaw ma nag dañ leen nëbb xaw ma dañ leen denc xaw ma sekk lan lay waaj daal loo xam ne taxu bëggul ñu feeñ mais ci wàllu boobu tamit euh, gis nañ ni chaque fois Mouhamed Seck Melo du yem rek ci wàllu musique bi mais aussi dina feeñal culture mais aussi spectacle liñ naan spectacle ñu ko gis euh, ci ay seenam euh, donc ñooñu tey lan la ñu waaj tamit incha allah ci guddi. loolu loolu loolu loolu loolu na na ñëpp préparé loolu xam nga maam Fama lañ xamoon sama lingeer yi muy bébé Thiané lingeer Marème dinañ ci dolli lingeer bébé Fatima ak Sofiatou danañ ñëw comme ni ñu defee woon ca. CICES waaw foofa macha allah bés ba maman ki ne tuur xéewal sama capitaine bi bu mu yëngalee bopp bi yëngal nooy waat laa ne ah ñu xam ne rek dugg nañ ci maam yi foofa la ñuy duggaat nag bu wax leneen nag ndax su saa su ne am na lu ñu war a wax ci kilifa gi te mam Fawa Diwele loolu moom dama koy may soxna umul xayri mi nga xam si moo yor fondation mam Fawa Diwele noonu kaa mbokkam soxna Fatima président les femmes devues pour la cause loolu dafa am solo mais dinañ ñëwaat si beneen spectacle wastadda xusnul wara yaa rabbi fawqal bara danañ ko gis spectacle son et danañ gis tamit jigéen naka la war a sëyee xale yi jigéen yi may waxal ñi may saan gis nañ ni mariage yi yu ñu may woo yëpp dafa am lu tax ñuy woo sekk melo benn style bu ñu xam léegi acoustique la ñuy wax acoustique oriental soufi donc il faut que ñu dugg ci réew mi wane waa réew mi danañ wayal ñaseen yi danañ wayal laayeen yi danañ wayal euh, euh, ñëpp loolu nag ku ko mën xam nga ko mën Moustarchidine rek ku ko mën ndax euh, ñu baal ma de li tax ma wax ko mooy kilifa gi nu am moo ni mel moom rek moo nar a taal moo sañ a tàllal loxoom ibbi ñaari loxoom ni sama waa kër maam yi lañ fi defoon ci li Hadji Malick Serigne Touba mam bu mam Limamou Laye maam Abdoulaye Niass yëpp ñëw leen daal di di uuf nag ubbiku tey Abdoul Aziz boo ko fëggoon léegi ni ko waxal ma def sëñ Touba moo waxal la ko la looloo war melting pot laa bëgg a wax day nekk melting pot nga xam te ni leneen lay nekk incha allah ci kàttanu yàlla te dañ ko xaar waaw du ay way rek de <laughs> leneen dafay am incha allah rabbi <laughs> loolu moom euh, bu ko waxee euh, lu firndewu la ndax gis nañ ko spectacle yi nga xam ne ñoo weesu mais léegi nii dama la fekk ci séance de répétition bi yàgg euh, musiciens yi rawatina bassiste bi ngeen nekk daal di am yu ngeen di arrangé mais ci biir arrangé bi dafa mel ne yow yaa mujjee nekk bassiste bi xaw ma nu mu demee donc euh, ci wàllu boobu aussi wàllu wàllu maanaam ni ngeen di dundee répétition yi parce que ñun am na loo xam ne coulisses yi duñ duñ ko gis ñun xëy na spectacle bi ñuy gis ñu def balance yi après spectacle bi ñëw mais coulisses yi liñ fi jot a fekkee fii euh, dafay mel ni en complicité. ak euh, ñi nga xam ne ñooy instrumentiste yi mais rawatina basti parce que am na fu ngeen di jokkalante foo xam ne foofu mel na ni xaw tuuti nga jël nga jël affaire yi ci moom. <laughs> waa am am nga yéene dafa dëgër bopp mooy mooy sama boy Vieux Guèye Vito daa dëgër bopp il est très fort c'est un champion euh, Mame Alpha Guèye moo ma boole woon ak moom depuis 2015 euh, deuxième édition Grand Nuit des Valeurs 2015 ba léegi mu jàppatoo bàyyi a tout moment vie Guèye il est toujours la toujours présent. J'ai voyagé partout avec lui, partout au Sénégal. Et Inch'Allah, je vais voyager avec lui partout dans le monde. C'est 4 tonnes de lac Mbaham. Barke Seydou Moulay Mohamed Mais il est un peu de bop. Voilà. Dama ne ko defal ma kakak geek geek. Mais moom mën na ko quoi mais daa yàkkamte ñibbi. Tuwaan pël moo sori léegi nag <laughs> mu foog ni bu ne geek geek day gaaw pour morceau bi gaaw pour mu jeex mu ñibbi. loolooy problème bi mais vraiment loolu nga wax noonu gis nga complicité ba nga wax noonu en lay nekk par par la su amul rek. artiste bi raté na vocation am artiste su mënul su mënul corriger clavier bi mën a corriger bassiste bi mën a corriger batteur bi corriger percussionniste bi corriger chœuriste mu xam li mu bëgg moom ay suweem bi defal ma nangam donte mënu ko jouer de waaye am na oreille bi waaw bu ko def su waxee bëgg-bëggam rek kooku def ko. voilà mbokk yi euh, mi ngi. noonu euh, niñ leen ko wane muy Mouhamed Seck Melo ñu fekkoon ko nag euh, en séance de répétition. wan leen leen nag ci li mu comme tàmbalee liggéey waaye tamit wan Euh, waxtaan wi nga xam ne nii séq nañ ko ak moom ci préparatif yi nga xam ne ñu ngi koy wàcc incha allah kon mbokk yi daal euh, mi ngi noonu euh, melting port la incha allah grand théâtre le 9 décembre ànd ak ndaanaan Mouhamed Seck Melo ci la grande nuit des valeurs mi ngi noonu nag kon na ko ñëpp waaj waaye tam na ñëpp réserver aussi seen i ticket kenn ku ci nekk rek wooteel ci numéro yi bu ngeen demee ci page Facebook muy Mouhamed Seck Melo officiel. di ngeen euh, jot toutes les informations yi nga xam ne moo aju ci bés bi waaye incha allah Mouhamed Seck Melo moom itam euh, samdi bii di ñëw moom la ñuy dalal incha allah ci seen émission Sonate Sacré euh, mu nekk dernier virage bi ñu war a wax nag ci le 9 decembre mbokk yi ci émission boobu ni ma leen ko waxee ci bi may ibbi danañ ci maye 10 yoo xam ne nii pour ñi nga xam ne bëgg nañ ñëw seetaan spectacle bi danañ ko maye ci émission boobu. émission bi nag incha allah ay tontu la ay laaj la ngeen jox ñu tontu yi donc ci laaj yi nag mi ngi tourner autour artiste bi ay yëngu-yëngoom rawatina ci édition wu euh, GNV yi rawatina première édition bi ba ci incha allah quatrième édition bi nga xam ñu ngi koy wàcc le 9 décembre ci Grand Théâtre euh, lépp li nga xam ne moo ci aju moo xam ci wàllu date yi moo xam ci salle yi ko defee woon ak fait marquant yi nga xam ne ni amoon na ci édition yooyu. Euh, question yi daal ci loolu lay tourner incha allah dix ticket nag mi ngi ñu teg incha allah samdi lay doon bu ko defee ñu ñëw yéen ci laaj yi ngeen jox ñu tontu yi après ñëpp ñi nga xam ne rek euh, tontu nañu mu méngoog laaj yi danañ leen jox seen i ticket incha allah ci euh, Mourchid TV ànd ak ñi nga xam ne. ñooy euh, kawkabul alxaan di star di orchestre bi nga xam ne ñoo fas yéene bégal ñu incha allah ci guddi gu mag googu nga xam ne le 9 décembre la euh, ca Grand Théâtre ak Mouhamed Seck Melo mbokk yi ni ngeen ko xamee rek ñi ngi woy di ànd ak sunu sponsor officiel muy kenn bëggul bu sa Moustapha si numéro yaa ngi noonu affiché au bas de l'écran mën ngeen ko jël ngeen woote ci dingeen jot ndaw ñi nga xam ne ñu ngi koy taxawu ci wàllu liggéey bi waaye rawatina ci buumu jokkoo yi ngir ñu mën leen a gindi incha allah ci li nga xam ne yitteel na leen soxal leen ngeen bëgg ko xam wala li nga xam ne tax na ba tax ngeen bëgg jug dem ci kenn bëggul bu sëriñ Moustapha si ñoom danañ leen ah, teg ci yoon wi nga xam ne ah, ci ngeen war a jaar mbokk yi liñ ñu joxoon ci waxtu ñi ngi fay bëgg àgg su ko defee rek. Ah, dañuy daaneel sunu kàddu jox leen daje incha allah samedi bii di ñëw seen émission Sonorités Sacrées ñu fas ne nag dalal ndaa ndaanaan Mouhamed Seck Melo ñu waxtaan rek ci yi nga xam ne ñoo mujj balaa ñuy dem ci spectacle bi nga xam ne le 9 décembre lay am euh, ca euh, Grand Théâtre mbokk yi noonu la ñuy àndee bégal leen ci Mouhamed Seck Melo ci way wi nga xam ne mooy euh, sagu jamono ndax sagu jamono la lépp déparé ci concept bi nga xam ne mooy akusu waaye nag di teg jéego jëm Grand Théâtre Mouhamed xam nañ ni way nga Lions yi de waaye nag Lions yi dañ koy denc incha allah ba samedi ñu wax ci euh, mu gën a yaatu Thierre dafa mel ne am na loo muy déedéet su fekkee baax na ñu dem euh, Seydou Ousmane Gaye ñi ngi koy nuyu bu baax moom itam di ko ndokkeel euh, di nuyu soxna yi di leen ndokkeel ñoom itam macha allah di kontaan ci moom ma nga fa mu toog waaye nag mi ñuy béggee saa su nekk kon Seydina Ousmane ñi ngi lay bégal di la may sagu jamono bi yow dong nag koo sédd rek mu séddu waaye ko seddul tey du sedd ba ci ñoom Cheikh Omar Tall ñoom Thierno Dianka ak ñoom may Gueye ak ñoom Pape Ndiaye ñoom Mapenda ndaak ñoom Ngañ Diop ñoom Ndiaye Toora yow daal Ousmane Gueye koo jox mu jël koo joxul nag du am jox nañ la lépp macha allah kon mbokk yi noonu la ñuy ànd ak Seck Melo tàggoo ak yéen incha allah ba samedi jàmm ngeen di am jàmm ñuy am jàmm ba samedi ak jër jërë ngeen jëf. sama kër gu yaa xëy di bay ci toolu Maktoum ba tey taxaw nga ma Maktoum ci dundam yow dong ba rangooñam masul dal ci dënam nun xam nanu ki nga doon fi nun te naan doon xutbul maktum umarul fuuti Maodo Malick maam xalifa maam maktum asan ah, bi ñoo ngi lay siyaare asan ah, ñoo ngi siyaare sigi faage jamba masa jiwaar sa tub lansaar yow mbata fay sa maam mawdoy sa maam Babacar Sey sa maam Ahmed Dem Sokone sa maam Boubacar Bouboussi sa maam Daramane sa maam Idrissa ay samaam Yuusuf ay samaam Sherifu Shamsuddin samaam Huseynu Hasan ay samaam Fatimatul Ansaar ay samaam Muhammad Rasulillahi sallallahu alayhi ay samaam Sherif Beye kon day nga nu sëriñu dengan wéruwaay maneefu laa ñaawal ku la nar a ñaawal ñaaw star si din kenn mënu ko ñaawal ku ko nar a ñaawal sa góor kenn mënu ko ñaawal baax na jëf na ëpp doole joow ñaana ëpp doole ngërëm nañu def wàññi coole ñaanal capitaine be ñaanal capitaine be ñaanal capitaine be yàlla teñal la yéen capitaine kenn mënu ko ñaan capitaine sa buur gi kenn ku ñaawal sama góor gi sa góor gi kenn mënu ko ñaawal